mooy coranique les grands secrets ñu fi amal ak yéen yenn ci secret alquran yi nga xam ne dana yombal dunu doomu aadama te yeweneel ay mbiram ci zahir ak ci baatin tey nag ñu indi leen leen secret boo xam ne secret bu am solo la secret noob noob bii nag ñu leen indil noob la boo xam ne noob bu doy waar la ñu ngi ko liggéey comme ni ngeen ko gisee nii fa jamaxnaahum jamxan ci lañ ko liggéey ubbi li nga xam ne maanaam moom mooy mii yi secret bi nag li ko tax a jóg mooy delloo si ku la wan ginnaaw delloo si ku la wan ginnaaw delloo si ku la wan ginnaaw nag bu ñu ko waxee dafa am nuñ koy defee ndax secret boo xam ne nopp la duñ faral di ko faram di wax nit ñi ki ko war a jëfandikoo wala di daawuñ ko def waaw waaye nag secret bii nag li tax tey ñu indil leen ko dafa am solo te incha allahu képp koo xam ne def nga ko incha allah yàlla dana la ci may yëkkati ko bu baax a baax a baax lu tax ñu ne la pour delloo si ku la wan ginnaaw léegoo léeg doomu aadama yi moo xam muy góor wala muy jigéen da nga am koo xam ne nattu lay noon nattu lay doon ci yow moo xam sa boroom kër moo xam sa soxna nga nekk ak moom ci jàmm. ngeen di dimbalante ba yàlla ubbi buntu wërsëgam noon day daal di juddu ndax doomu aadama moo mel noonu buy mbir yi di naqadi rek ci ngay am jàmm waaye keroog bu mbir yi soppeekoo rek jàmm day jeex ndax noon day daal di taxaw léegoo léeg nag jigéen ñi. dañuy yaafus waaye itam góor ñi dañuy yaafus léegoo léeg ndax doomu aadama képp koo xam ne am nga ko nga bëgg ko danga cee war a def yitte ba ñàkk ko ba kenn du ko yàq ndax doomu aadama yow mi am boroom kër ngeen nekk ci jàmm ci nekk ci jàmm googu si nga war a ut loo xam ne seytaane du dugg seen diggante ndax jamono bi ngay nekk ak sa boroom kër ci jàmm jamono bi ngay nekk ak sa soxna ci jàmm boo ne ko mu lekk dana lekk boo ne ko mu naan dana naan waaye nag jigéen léegi fi mu ne bala ñoo jug ngir am jàmm ci seen biir kër rek bata xay ñëwee bu xay ñëwee dootuñ amati jàmm dootuñ amati dara ndax ku newut ak sa borom kër ci jàmm dootoo ne ci jàmm kuy def loo am yóbbu ko ci sëriñ itam dootoo am dara waaw dootoo am dara ñun ñi nga xam ne dañuy wax ne sëriñ lañ képp ku ñu topp ci say jafe-jafe dootoo am dara li waral loolu nag mooy jamono ba nga xam ne fa la jàmm amee fa nga waroon a defaree waaye bu yàqu-yàqu amee rek jafe-jafe dafay ñëw ndax dafay fekk mbir yi gën a jafe dafay fekk la nga daan am ci ka ngay defar am amatoo ko waaw boo na ko lekkal du lekk boo na ko naanaal du naan mi ngi noonu doomu aadama nag comme ni ñu leen ko waxee képp koo xam ne danga am sa boroom kër mu wan la ginnaaw dëdd la bàyyi la yow ak sa njaboot moo xam ngeen tas walla déggatoo ko walla nga am sa koo xam ne nekkoon ngeen bay waaj mébét mébét rek mbir yi nag dañ cee am mbir yooyu ñu maanaam nekk nit bay waaj mbir mbiri takk rekk waxatu ci dara fekkee jigéen la day mel ni gis la ak gis butitam yi la bokk yemale doo la dootu la mën a def dootu defateeg yow nen boo ko ooyee mu coupé la nangu boo demee seen kër doo ko fa fekk mel ni dañ leen a dëddale fekkee góor la nga defoon yaakaar ci moom day jékki-jékki mel ni dañ leen a mel ni dañ leen a da nga ko reyal euh, taawam yaakaar yépp tas te bëri na ci jamono jii li ñuy oo di ñuy wax ne dañ maa naroon a maye wala damaa naroon a jël soxna waaye ka euh, defal daal keneen a ko takk wala nee na keneen la bëgg ci loo xam ne du man ñaari fan cat cat diggu ci yàq lépp waaw ko góor ki xamoo mbokkam yi xamoon nañ la ku jigéen ki mbokkam ko xamoon nañ la nga xam lépp waaye dañuy jékki-jékki wajuru ko góor ki ñoom ñoo koy dugal ci keneen wala wajuru ku jigéen gi ñoo koy dugal ci ñoo koy dugal ci keneen sëy bi ñeenti fan ko mat say bi am loolu ñàkk a jug rek moo koy def noob bii ñu leen di indil nag noob la boo xam ne képp koo ko def incha allah bu fekkee daf laa wan ginnaaw dafay ñëwaat te dafay ànd ak kaaraange yow ak moom dana mel ni xar ak boromam dana mel ni xar ak boromam moom ak ay mbokkam lépp moom ak ay mbokkam lépp waajuram dañuy mel ni xar ak borom boromam ci yow lépp loo bëgg danañ wax waaw lépp loo na déedéet danañ wax déedéet incha allahu rabbi fa ndexem defa def nga ko niñ la ko waxee ndexem def nañ def nga ko niñ la ko waxee boo ko defee incha allahu sa diggante yow ak ku jigéen kooku sa diggante yow ak sa borom kër sa diggante yow ak sa soxna sa diggante yow ak sa patron dina mel ni xar ak boromam moom ak i mbokkam lépp incha allahu képp ku ko def jublu ci caaxaan ñu ngi lay ñaan yàlla boo ci gis dara ndax jubluwuñ ci dara di nit ñi di jëfandikoo secret yi ngir lor kenn di jëfandikoo secret yi ngir nit ki moom ko nopp ko ci sa bopp loo bëgg mu def ko te yittewoo ko képp ku ko def rek ñu yàlla yàlla boo ci am benn benn benn réussite képp koo xam ne nag def nga ko tam nekk lu ci yow booy def secret bi rek di ci gis résultat yi incha allahu rabbi amul benn werante amul waaw képp ku ko ci def. secret la boo xam ne du jaas sa diggante ki nga ko def noonu dana mel ne xar ak boromam ñu ngi ñaan yàlla nag képp koo xam ne yaa ngi koy jëfandikoo ngir caaxaan yaa ngi koy jëfandikoo ngir loolu nit amoo ci isni te doomu aadama bi lu mu amul isni rek daanaka moom ñàkk a defayam amoo ci ndigal nit ki lu mu amul ndigal rek bu ko defee moom ñàkk a defayam waaw. secret bi boo koy benn comme ni ñu la ko waxee nit nii ko koy defee. dangay bind kun bismillahi rahmaani rahim salla ala sayyidina muhammadin wa sallim boo noppee nga bind comme ni ñu leen ko wane ni fa jamax naahum jamaxan boo noppee incha allah nga tëj ko ak salaatu ala nabi bu la neex ni mel nii nag danga koy bind lu toll ci juróom-ñaari yoon juróom-ñaari yoon nga koy bind miim bu njëkk bi miim bu njëkk bi dangay bind sa tur yow mi nga xam ne yow yaay nopp dangay bind sa tur bind sa turu yaay bind turu xale bu jigéen bi wala bind sa turu boroom kër wala bind sa turu patron bind turu yaayam boo ko xamul nga bind turam kese waaye yow mi nga xam ne yaay def no bi sa tur da ci ne ak sa tur wéjur bu jigéen mii mu ñaareel bi moom tamit noonu nga koy defee da ngay bind sa tur bind sa turu wéjur bu jigéen bind sa turu soxna sa turu boroom kër sa turu patron boo noppee nga bind turu boo ko xamee boo ko xamul bul ko bind mii mi ñetteel bi tamit noonu nga koy defee da ngay bind sa tur bind sa turu bind sa turu borom kër sa turu soxna wala sa turu boo nekkee nga bind turu yaayam boo ko xamul bul ko bind waaw boo ko xamul buñ ko bind waxuñ nag nga dégg muy wax yaayam mama ngay def mama bul def boo ko xamul rek boo xamul ni yaayam tudd ak sant bu ko jéem bu ko def waaw waaye yow mi nga xam ne yaay def nopp bi moom dangay bind sa tur bind sa tur yaay incha allahu rabbi boo noppee ni mel ni da nga ciy juróom ñaar juróom benn bi da koy lem téere lay nekk danga koy lem boo ko lemee nga ut butéel butéeli Evian yu ndaw yi jar cent defe naa Evian yooyu nga jël ndox mi nga sotti ko boo noppee da ngay ut meew nag exemplaire bu njëkk bi juróom-ñaar lay nekk exemplaire bu njëkk bi danga koy lem ba mu nekk téere nga dugal ko ci biir gutti gi gutti gi fekk dara du nekk ci gutti gi gutti gi bu mu am ndox bu mu am dara boo ko sottee ba ndox mi jeex nga jël téere bii nga dugal ko ci biir nga ut meew nag nga sotti ko ci biir nga sotti ko ci biir butéel bi tëj butéel bi boo noppee gas ut foo xam ne danga koy gas ba mu xóot nga suul ko fa nga koy gas ba xóot nga suul ko fa boo noppee ñaareeli exemplaire bi ndax juróom-benn mooy des nga jël ñaareel bi nga def ko saafara boo xam ne incha allahu danga koy boole ak yàpp boo yàpp maanaam doggu yàpp tuuti nga nga ciy booleet nga fexe fexe fexe fexe ba sànni ko xaj mu lekk ko incha allahu maanaam da ngay jënd doggu yàpp jël saafara bi wis ko ci. ci kaw dogu yàpp bi incha allah boo noppee nga jox ko xaj mu lekk ko léegi juróomi exemplaire yi ñoo des juróomi exemplaire da ngay jël ñaari ñaari yi ngay jël nga def ko li nga xam ne maanaam moom mooy saafara moom tamit incha allahu saafara nga koy def nga boole ko ripaas nga jox ko xar mu góor fekkee jigéen nga xar mu góor nga koy jox mu lekk ko fekkee góor nga xar mu jigéen nga koy jox mu lekk ko waaw léegi ñetti exemplaires yi nga xam ne moom moo des danga koy def saafara yow ci sa jëmmi bopp danga koy def saafara nga boole ko ak parfum benn parfum kese moom lay àndal nga sangoo ko juróom-ñaari yoon mooy juróom-ñaari exemplaires yi juróom-ñaari yoon nga koy sangoo juróom-ñaari fan boo koy commencé nag danga koy commencé altine bi si altine nga koy commencé incha allahu képp ku ko def ki ko def incha allahu dana mel ni xar ak boromam. loo wax waaw dana wax waaw loo wax déedéet dana wax déedéet incha allahu bu nekkee ne da ngeen a yàqoo woon da ngeen defaru te defaru bi bu xasee defaru yàqoo dootu amati incha allahu ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañu yàlla may dégg may ñu topp te musul ñu ci barke alquran képp koo xam ne jëfandikoo nga secret yi ñu ngi ñaan yàlla yàlla wane na la lu kawe sa njortu képp koo xam ne yaa ngi koy jiw jëfandikoo ci ay caaxaan ñu ngi ñaan yàlla yàlla boo ci gis dara képp koo xam ne yaa ngi koy jëfandikoo ngir lor nit itam ñu ngi wax ne yaa ngi yàlla boo ci gis dara di wax ne secret yi nga xam ne moom lañ dugal yëpp li tax ñu koy expliquer comme niñ koy defee bugguñ nit ñi defee ne dañuy dugal secret yi ngir ne sëriñu kenn newuñ sëriñu kenn képp ku ko mën a defal sa bopp defal ko sa bopp képp koo xam ne gis nga daalibe wala koo xam ne mën na alquran boo ko ko joxee sell na tam mën na la koo defal defal jox ko mu defal la ko nga jëflante ak moom la cay la nga xam ne mooy wërsëg wuy jugee ci yow waroon néew ci man na jógee ci yow dem ci moom ndax comme ni ñu ko waxee jubluwuñ ci ngir di xëcc kenn ci suñu bopp secret yoo xam ne luy baax la te niñ koy waxee nii noonu lañ koy jëfandikoo moo tax ñu ne nañ ko dugal séddoo ko ak jaam ñi jaam ñi jariñu ñu jariñu yàq dara nga sa jariñu doo jaam itam jaar ci beneen loxo bañ jariñu ak ñu jaar ci suñu loxo lañ lañ yemale képp ndax luñ ci jublu rek mooy ñu jariñu yàlla yàlla jariñu ñu ñëpp ci barke alquran di wax na képp koo xam ne bëgg nga ci ay leeral ci vidéo yi wala yeneen vidéo yu ñu dugal mën nga ñëw oo ci suñu numéro plus 221 77 286 38 79 77 286 38 79 yàlla yàlla may ñu dégg may ñu topp musal ñu mosol ñu feesal suñuy xol ak seeni xol ba mu fees dell ak yàlla te feesal seeni poos ak suñuy poos ba mu fees dell ak kàddina lépp loo xam ne yàlla mën nañu koo may loo xam ne du ñu yàqal dara ci suñu jullit du ñu yàqal dara ci suñu nekk doomu aadama du ñu yàq yàqal dara ci suñ bëgg lu baax du ñu yàqal dara itam suñu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu ko yàlla may yaara bi lépp loo xam ne bu ñëwee daf ñuy indil gàllankoor ci suñ dund wala suñ di di di waral suñu yàqoo ak nit ñi yàlla bu yoon loolu yegg si ci barki alquran ñi ngi sant ñi ngi gërëm ñi ngi leen di ñaar yàlla asalaamaaleykum